le ministre d'État Ismaël Madior Fall y a un tel na préoccupé wu ah. ci euh, li euh, Sénégal euh, parce qu'il est au cœur quand même du dispositif étatique et chaque fois man je mu doon ak me de daf il vaut mieux ñu wut loo xam ne dana bi masque et masque c'est bien importer des masques, c'est bien, mais je pense que euh, euh, de la même façon que suñu médecins yi quand même gëm seen bopp di wane ñoom tam seen expertise jot na tamit tam ñun ñu suñu loxo euh, expertise locale bi et notamment l'artisanat bi nga xam ne bii ne marché yi euh, pour ñu mën leen liggéeyloo et a naa années, euh, le ministre d'État le xalat le la gëm tax nañu masques de toute façon ça devient quasi impossible bon il faut que nous jël les normes adéquates ñu les euh, les artisans euh, tailleurs locaux pour que nous ñu nous a et nous bi Rafetna, liggéey bi c'est euh, réutilisable manam mën nañ ko jël jëfandikoo ko mën nañ ko fóot mën nañ ci def touti euh, détergent euh ministre joxe na dix masques pour le mouvement euh, Tëngéej bu bess mais euh doyagul et que population ko ci nek nang ci bay sa waar waaw ku mën defar masque nga defar masque euh lolu mom moñuy ar ci fièvre bi mais ngir yalla euh nañu nañu sol masque quoi parce que loolu moom moo ñuy jàppale loolu moom moo ñuy dimbali.